mbokk yi combat bu garaaw baa ngi nii di dox ci ñaari adversaire yoo xam ni dañoo am ay tolof tolof ci lambu ndax daanu nañ daan nañ jël bu nekk ci lamb ji waaye daanu nañ jël bu fii ci lamb ji tey jii nag xool kan dem waaye du yomb de amul frein moo leen fekk seen càmmoñ Ama Baldé bu Touba Ndiarème moo féete seen ndeyjoor amul feneen tey andi na entraînement de waaye ama andi na amul feneen di mbër xam ni day daw jël say tànk ramassé nga toog mu jàll ci ki la waaye ki muy bëreel di ko xam ni bu la jàppee da lay añ roof la galgal xattar bi la ndeysaan ñoom ñaar loolu mooy seen for ndax. amul franc dana andi deuxième forum bi muy mboot ah combat bi combat bi doy amul franc bëgg na combat bi de amul franc bëgg na combat bi waaye amul franc bu ñu xoolee Ama Baldé ci wàllu li mu def ci làmb moo ëpp doole fopp lii ki nga xamante ni mooy amul frein def ci làmb ci wàllu adversaire ak suuf amul frein Ama Baldé Ama Baldé wàcc na ci ay tànkam amul frein ma nga aj gartam amul frein ma nga aj gartam ma ngay dox ci kawam amul frein déclenché na Ama effacé ko ndeysaan ñu ngi lewaatoo lewaatoo bu bar ay ku daanu yërëm naa la tey ku daanu tey jii doo reer doo nelaw doo sangu lay la laa Aliou Touré gàddu baax na waaw Aliou Touré dafa bëgg a daw jàpp Ama Baldé mooy tuut fii Aliou Aliou Touré mi laa ilaaha illallaah Ama Baldé jël nga coup wala ku nekk sa taxawaay baax na macha man lii laa d'accord buñ la joxee combat da bu ñuy am taxawaay bu mat sëkk waaye daanu ñibbi maa ngi taal yi lay la la eh amul frais na ku amul frais jël nga ku ama paré gis nga ko eh baax daal daw na na ko lay eh ala eh lay la la ña ngay xeex ñoom ñaar eh attention kawo attention kawo attention amul frein ma nga xeex attention kawo attention kawo lay lay lay lay jàppante nañ ña nga xeex ña nga xeex ña nga xeex ama am na lu muy waaj ama balde am na lu muy waaj ku waaj boo bàyyee loxom bi xam mu ngi lay waajal dara de boo bàyyee loxom bi mu kor la de laay bu la nga xam Ama Baldé Ama Baldé dafa téye am na fu mu téye amul fere teel a bële téye oh waaw gis nga oh ndeysaan ah suudu combat bi ñor day na waar xawsu waaye. bu doon toll loolu combat bi ba nii jeex na xawsu. tey Ama ba nga naan ko demal ardo amul fere naan gars toog leen tuuti rek xaar leen rek. may leen ma tuuti ma ñëw rek amul frais Ama Baldé looy xool ci sa loxo bii tee nga bëre Ama tee nga bëre Ama Baldé avertissement Ama Baldé laay léeg-léeg laa Ama déclenché war na xeex ña ngay xeex ñoom ñaar ña xeex. ama ama ama ngay jàpp amul frein jàpp na ah amul frein fa mu tee baax na amul frein fa mu tee baax na bàyyiwaat na ko ama ngay kor ama looy bëgg nii mbaa du jeexee ci avertissement ama looy def nii ama amul frein defal attention amul frein defal attention waaye gargal na la la la la ama bal daan na amul frein. Ama Baldé daan na amul frein Ama Baldé Ama Baldé daan na amul frein ah, ar bi nee na jël la amul laaj la la ñu lay xeex ñoom ñaar jël na ko jël na ko Ama Baldé amul frein moytul galgalu Ama Baldé bi baax na amul frein moytul galgalu Ama Baldé bi waaw Ama Baldé am na lu muy waajal Ama am na lu muy waajal Alioune Seye moom na lu muy waajal da koo bëgg a génne saako yi Ama bañ na Ama bañ na waaw amul fere ngay rokkas amul mooy rokkas rokkas amul mooy rokkas rokkas amul mooy rokkas rokkas ma ngay rokas ma ngay rokas ma ngay rokas ah eh, la la la ah ña nga xeex ca biti ñaari avertissement wax na dëgg da koo dóor ca ginnaaw saako ya ah waaw arbitre suuf la waat na. arbitre suuf la waat na Ama Baldé ma ngay dox ci kaw amul frein ma ngay dox ci kaw amul frein ñëwee lay lay la la amul frein nga ko ña ngay xeex ñoom ñaar Ama eh Ama jël na ko waaw waaw waaw ko doon kal waaye bañ na amul frein euh, Ardo ardo arbi suble waat na arbi suble na ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo waat ama ngi dox ci kawam déclenché na ko ama dawaat na jàpp ko daw na jàpp ko galgal na ko lay lay la amul frein teggi na ko amul frein dindi na ko ah rokas ya rokas ya rokas ya eh, laa ilaaha illallaah amul frein Ama Baldé amul frein Ama Baldé amul frein Ama Baldé amul frein Ama Ama bañ na Ama bañ na Ama bañ na laa ilaaha illallaah combat bi neex na lay Habib Soule waat na newoon naa leen combat bi du yomb nee na ko demal ardo nee na ko demal ardo waaye amul frein fi mu taxaw baax na waaye Ama du ko bàyyi amul frein li muy def ci suuf neex na bu ko Ama roofee caxabal da koy teggi bu ko neexee galgal mu teggi ko. ñaata combat des. ñaari des de. waaw waaw diggante caatu maalaw ak bébé Balla. bu ko defee nag combat bu rëy bi ñëw daj dëpp gi diggante sos bu kalam wallaay ak Siteu nee na ko demal ardo te nga bëre gënoon koo gis arbitre laay lay loola laay lay loola looy def nii eh, xeex ba xeex ba non vraiment ñaari mbër yi dañoo xaw a tële bëre quoi. xaw nañoo télé bëri ah. lii ba ba léegi naa jeex waaye nag lamb kenn ku nekk am nga foor kenn ku ne am nga foor combat bi neex na kenn dee mérité wul vraiment ah, ngeen combat bu combat ci biir combat yi ndeysaan gaa yi li leew mu ngi mel ni dara sa xew te fekk ni yow dara xewoon na ay da koo bëgg a génnee boo boo génnee am carte avertissement de arbitre bi bànn la nee leen ñëw leen ci géew bi soo leen a attelé andi leen ci biir géew bi xale yi dañoo am entraînement ndeysaan ña ngay xeex ñoom ñaar ña ngay xeex ñoom ñaar xeexu secret lay lay la laa kii boo tuul mën nga am problème de baax na ku ci jël ku bu metti mën nga am problème de gis nga ko waaw waaw laa ilaaha illallaah ah da ngay jëlaat avertissement ba assistant bi moo demoon doon wax ki nga xam ni moo nekk ci siège bi taxaw Ama Baldé arbi suuf la waat na di premier minute jeex na ah ay xale yi entraîné nañ waay arbi waat na arbi waat na combat bi mu ngi yàgg waaye Ama Baldé bu teeyul ci li muy def mën naa jël defet waaye nag ba tey rek man nañ jàpp ni Ama Baldé adversaire yi mu am amul frein amu ko maanaam gis nga daw na jël na ko bañ na amul frein yaa ngi jël ku amul frein yaa ngi jël ku amul frein yaa ngi jël ku amul frein yaa ngi jël ku yaa ngi jël ay ku amul frein yaa ngi jël ay ku de baax na waaw ah waaw dañ koy avertir de am na lu xew de am na lu xew de am na lu xew la waat na arbi la waat na trois avertissement pour Ama Baldé arbitre soufflé waat na aywa ah combat bi na métti waay daw na mu ngoobu ko Ama Baldé yëkkati na loxo mu daw ngoobu ko Ama Baldé fa mu téye baax na Ama Baldé ma rokkas ma rokkas daw na firi na ko eh Ama Baldé li def nii wóorul de wóorul buñ la dijee nga xam Ama Baldé fam jàpp baax na. waaye ndax dina def dara Ama Baldé da ko bëgg a génne waaye Ama bañ na booy nag tey moom dañoo entraîné moom macha allah ah, waaw Ama Baldé mi ngay génn saako ya ñëwaat leen Ama Baldé mu ngi wane expérience ci wàllu lambu. Ah, waaw arbitre bi dañ ko bëggoon a yoxoos waaye bañ na. Abou Fré daal seen bi fukki saako ya doon ko am mbic sànni ko ci biti bëggoon ñu jox ko waaye Habib daa bañ ay bi daa wàcc ci lamb ah waaw ah waaw. <laughs> gars yi mooy loolu xawsu da ngay kaar macha allah da ngay xool waaw jërëjëf xawsu Diaw. jërëjëf waaye ndax saf na wala saful Ama moom tamit def na gauche droite dajaleñ ko suuf laay lay la laa ña ngay xeex ñoom ñaar ña ngay xeex ña ngay xeex ñoom ñaar ña ngay xeex ña daa am taxawaay de tey jii waaw di premier ministre daa mel ni ndax na leen suuf la waat na eh, bi combat Fere Abou ma ngay nàcc nàcc bu métti waay at bi waat na at bi suuf la waat na arbitre arbitre waat na arbitre suuf Eh, xeex bi xeexu ginaar la xeexu ginaar la xeexu ginaar la ah ñoom ñaar ña ngay las la si eh la ilaha illallah loolu lu mu doon loolu lu doon amul Franc da koo bëgg a génne saako yi waaye naataangoom lay bëreel bañ na. naataangoom lay bëreel ah waaw da ngay delluwaat ardo wala lu xew ar bi nee ñëw leen ci digg géew bi oh Senghor yaa ngay naaw laar yaa ngay dagg bëccëg yaa ngay wadd dàkk yaa ngay tasaaroo ndeysaan arbitre ba ndeysaan eh dama soog eh yoon nga yoon baaxul amul amul yoon baaxul léegi entraînement feeñ léegi léegi lamb ci mën jeex nag boog ah waaw amul frais looy def baat da nga bëgg a jeexal combat bi amul frais amul frais fayul kii yëpp di ko bëgg a fayul Ama Baldé doon ko topp na ko ko bañ ko bañ na jël ko bañ na ndeysaan beneen avertissement pour amul frein dafa mel ni léegi combat bi jeex amul frein taxaw na taxaw na léegi entraînement feeñ amu feeñ def na ko suraat ndeysaan eh quelle fatigue quelle fatigue quelle oh ndeysaan Ama da koo bëgg jàpp ba rek moom gis nga Ama doon na ko bu dal ndeysaan Ama ramassé waat na ko bañ na amul tëru ko. Eh, waay amul mu ngi koy bëgg a waaye ama bañ na ama bañ na euh, doon na ko firi amul fee da ko doole euh, amul fee fi nga dugg fii fi mu doon waaw la ama balde kor baaxul ndeysaan euh, neex lee neex lee neex lee neex waay lee mu neex li ma gisee mbir yi neex ayaaw lee mu neex ña ngay xeex xeexu ginaar ah ñaari xale yi waay ñaari xale yi fi ni ñuy doxee nekk ay gaan ba faw waay ba faw ay copain la doon kenn mënu ci dara ñaari góor lañ ayaaw ay copain la doon amul pare yooru na takk na ko bañ na. laa ilaaha illallaah Ama Baldé daa doole tay waaw ndeysaan arbitre suuf la waat na bëri leen wax arbitre yaa fi arbitre yaa fi arbitre yaa fi coow leeg wax ju bëri jeeg da ngeen a xamul la ci biir rek léegi bu ngeen xamul la ci biir Ama Faldé déclenché na gauche Ama Baldé taxaw na waaw Ama Baldé dañ ko kar rek Ama Faldé jàppante waat nanu ñoom ñaar fii nu nekk day daa nooy nu nekk daa nooy amul frein Ama Baldé kor na ko bul génne sa bopp de waaw gis nga ko boo génne da nga jël ay coup ay waay ay waay amul frein Ama Baldé nga koy rokkas mu ngi koy rokkas mu ngi koy mu ngi koy rokkas laay lay la ay ñaari coppe yi mu ngi koy rokkas mu ngi koy rokkas mu ngi koy ngi koy am na lu muy waaj faxat na ko bañ na awa fara ngay fayu moom it kuy taal fee looy taal ah awa fara ngay rokkas moom it ndeysaan am lu ko xam di wax ah waaw ana caxabal ay waay ñu ne ci ginnaaw ñoo gën a sonn ña ngay rokkasante Ama Baldé fi nga taxaw baax na amul frein moytul Ama Baldé jàpp góosam bi moytul Ama Baldé jàpp góosam bi boo wala ma ne sa du baax jël na ko jël na ko eh. laay lay laa. arbitre soufflé waat na <laughs> eh waay nekk ci biir sax ñoo gën a yàkkam di jeex. yëfi jeexagul de yëfi jeexagul de ndeysaan laar yaa naaw waaw lapp taake yaa ngay dagg amu frein déclenché na gauche amaa ngi koy tëru amu frein motul ama a ah, combat ba liil na a ah, waaw amul frein am na ndam waaw trois avertissement la ak deux avertissement